réew mi euh, ñu ñëw ci seen parti Pastef Pastef tey jii nii euh, yéen a ngi gisee yéen Pastef e-, existe tul sur le plan juridique sur le plan administratif dissoudre nañ ko mais munoo leen investir keneen ngeen di investir koo xam ni dafa nekk si les lien de détention Diomaye Faye la ñu investir dafa nekk sous les liens de détention mais il est toujours électeur et éligible tant que condamné wu la mën nga élec nekk électeur te boo nekkee électeur mën nañ la fal loolu mooy problème bi tëj la tu es toujours présumé innocent bu condamnation amul rek yow mënuñu la tere nga bokk ci élection yi donc looloo tax Diomaye fay bi ñu tëj te kenn condamné ko ko ak yow miy toog ci mbiti yéen a yem képp ci élection. mais Diomaye am na procédure boo xam moo ci ndondam jamono ji. non non amul procédure loolu amu ci benn njeexital ci loolu il faut ñu yee ci askan wi cest à bu ñu nee kii de dafa def nangam. nangam googu tant que yóbbuñu la ci juge ba mu condamné la dëggal ni yaa ko def tu es toujours présumé innocent mooy dañ la jàpp comme ku deful dara ba ba ñu lay teg loolu ñoom nag dañ leen tëj noonu provisoirement léegi kenn mën gu leen jugé te tant que jugé wul na ba kondaam ne la yow ak ki nekk ci biti yéen a yem ci élection. mais am na ñu jàpp ni boo nekkee partie bu ñu tas. Euh, munoo dem ci beneen élection euh, wala yow yan condition la jomaay nar a demee parce que munul dem candidature libre wala yéen da ngeen jàpp ne beneen coalition moo ko mën a porter pour candidature am jàll. loolu dafa leer ñi loolu wax nañ ko wax ko c'est-à-dire au fond ki nga xam ne dañ tas parti mënul jël récépissé parti ba di ci dem élection benn. ki nga xam ne dañ tas parti am dem candidature indépendante lu tax parce que euh, amul un an yu nga xam ni bokkul woon ci parti mais ku nga xam ni tas nañu parti am aussi il est toujours électeur et éligible dooni man Biram Khoudia comme tas nañu parti bi man mënuma foote amul fenn te boo nee wootee rek mën nañ la fal loolu mooy problème bi tant que condamné nañ loo boo mënee woote rek mën nañ la fal te ñoom mën nañu woote donc mën nañ leen fal. moom ban euh, ban voie lay jaar candidature libre lay nekk wala coalition. mënu ma anticiper si loolu de toute wax naa voie yi ba mu leer nañ xam naa ne ñun ñu jàng lañu xanaa du ñu dem du jël voie bu nga xam ne dañ kii. donc donc est-ce que comme par exemple ngeen jël koo xam te ni euh, Birame Khoudia mi nga xam ne ni yow tey mun ngaa nekk candidat wala ñu jël keneen Birame Souleye wala ñoo xam amuñu benn problème ak kii nii. dama ni la léegi man ak Diomaye fay ñoo yam képp ci élection actuellement parce que man kenn condamné wu ma moom kenn condamné wu ko bés bu ñu ko condamné nag peut-être mais nekk de lien de la détention terewul nga nekk candidat terewul nga vote am na benn journal bu bind keroog sax nit ñi nekk euh, ci lien de la détention yëpp ñu xam ni ñu ngi violer seen droit tant que wu leen war nañ dewaay leen ñu dem voté ji foofu ñu ngi euh, violer droit wu ñooñu donc ils sont électeurs et éligibles loolu dafa leer naa amul sax dara lu ci werante macha allah Ousmane Sonko bi nga xam ne tey euh, condamnation dañ ko remettre en cause déjà il est donc Assuma ak Diomaye Faye kooku